bëgg kontaan de defaral waa ji bagage jël suñu yoon ñibbi si waat nank gàkko du problème ak ñun du ci non du ñun ak moom barki sëñ Bamba leneen la ñuy xooli mais du gàkku de barki borom Touba te bu nalawee ñu yee ko te buñ ko yeewee dootul nalaw ba faw barki borom Touba maintenant lañ dëgg dañ soxla ndam ñoo ko gën a bëgg fop billaay wallaay wa taalaay bu ko jéemee fokkate suñu loxo day dee wala mu dof wala ay rab topp ko na si bàyyi xel na mille mille cent mille mille cent mille mille pour cent Medina bi bii di ñëwaat dañ koy yokk deux mille pour cent pour Zarko na si bàyyi xel ñoo ni si ginnaawam non maintenant bu soxlaa ku soxla ñàkk maintenant moo jur bépp bërëb barki borom Touba teñ bàyyi xel lool na nee ko na bébé jën na day soog door na dégg dafa tàmbale nii rek di foo nii rek waneegul ba tey waaw lu mu mën lépp. daa ko doo du mas barki borom Touba bàyyi si xel dégg voilà ay ca góor gu dëgg la ah. amone nag ban amone da lay jox

ngeen xeexee ci yaakaar. barki Serigne Touba Mbacke bu reppee ñu dóor ko mu daanu luñ liggéey du pour moom ñu roi des arènes la ci kàttanu yàlla Odo Wana Thiès. Odo Wana Thiès moo géré billet. billet gars yi ñu jaay dañu war a génnee billet may ka gars yi ñëpp mun dem ndax stade bi mun fees. barke alxuraan ñu jël ticket. da nga war a jënd billet pour jàppale mbër bi. Bam moo jënd ticket yëpp maye ko gars yi di jël ticket di ko jaay. loolu moo ko maye. gars yi dañoo comprendre gars yi gars yi gars yi parce que. booy dem aller retour kaar yi kaar yi 15 ñuy loué. siyaaru bu baax. naka waar. ah ngi ci préparation yi comme dop rek. ni nga ko yàgg a defee rek kuñ jàpp rek yaa ma gën a xam. retour bi nu ngeen koy waajee. ñu ñu ne kii du du kii laaj leen ko ndax ba muy jël avance xanaa dafa jël ay jorox wala ay pion la jël. wota ndaaru tung woo mu ndaaru tung ndaaru tung. loolu. laaj ko laaj ko laaj ko mag yi kàngam yi kàngam yi nga koy laaj. kàngam yi ngay laaj loolu. noo gisee ñun Bébé Diène su doon bëreeg moom benn loxo sax Gackou 2 du ko daan Gackou 2 daa am xam-xam bu muy daanee Bébé Diène fu mu koy jëlee yow ku jàppee rëg-rëg nee leen kaale ma jàngal leen bëre dem Thiès jàpp seen champion bi seen champion bi nee ko kaama jàngal la bëre kooku day moroomu Gackou 2 yow kon xam nga ni Gackou 2 du wanaa Thiès doo xool. après ñu allah. comme dab rek mais laajal ma ko xanaa bu muy jël avancé daa jël ay jorox. waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba gàcce ngalama Cheikh Kara Mbacke Noreyni. waa Minna yow bu la doon benn 1000 pour cent Minna bi. wóor na suñu daal Bébé Diène ñu xam ne li nga ko waajal xam ne na yàlla may ndam nag yàlla yi ñaan ñun dañoo pare yàlla yi ñaan mais yàlla na waa Minna yëpp waa Minna ñëpp Ndakaaru ñëpp ñu si tey tey dañoo pare bàkki Serigne Touba gi nga xale yi ñëpp génn booy nelawuñu bàkki Serigne Touba Mbacke